leer na nañ dañ ci déggee sariha ak xaqiiqa ki laaj daal foofu lañ ko tontoo muy sariha bi xaqiiqa bi nag ku àggut ca tolluwaay ba nga jàpp ni tolluwaay yëpp tolloowun ndax wa aqimi salaata li zikriya la alxuraan wax julli bañ koy taxawal li zikriya nit ki nag li feeg àggut ci zikriya day tënku ci ashariha waaye bu mu weddu jërëjëf jëf ci ànd gi ngeen ànd ak rajo Xassida Online Touba Monde bi kon ku amaat lu muy laaj te waxtu yu Have سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكوري تيري رجا خصيدة أونلاين online dellu si nañ seen émission bi ñuy tuddee min xaajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Moustapha mbay saam di leen ko defal fii ci daaraam di ñuy tuddee Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu taala anhu mbokk mi nekk ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yadda allah wa nasar naa bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ngeen dimanche bi lay wessu ñu ñaari dimanche yépp ñu ngi doon waxtaan ci melaw murit sadiq ak melaw sëriñ bu mat sëriñ dëgg la sax waxtaan wa jeexutoon waaye arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yóbbu na ci ñu bëgg a waxtaane الشيخ الكامل سرين بمر سرين سنخل يبنيتي نبغى وقتاني المريد الصادق بمعنى الشاكرة لشيخ صالح مكة رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته نجلس شيخ الخديم jëmm jooju ñu bëgg a waxtaane mi as cheikh salih mbakke radiallahu anhu xam ngeen ni sayxul kaamil la woon saaxiran wa baatinan moo nekkoon alwaarisul kaamil li sayxil xadim radiallahu taala anhu aji donn ji donn sëñ tuubaa te ko sëkk ci lu nëbbu ak ci lu feeñ xam ngeen ni suñ borom rabbi xiti wa jàlla gaayam yi daf leen di parapare daf leen di préparé ci anam gu nekk ba nga xam ne buñ dikkee àddina seen xel seen xalaat du jëngu jëm ci dara du xalaat dara ku dul seen borom bi leen bind te moom leen moo tax sax benn saayir wax na ko nee na isa arada amran aya allahu lahal asbaab aya allahu lahul asbab suñ borom rabbi wa jàlla mu naree yan ab jaamam mbir mu rëy benn mu bëgg koo def yonant walla mu bëgg koo def bu samaan wala mu def ko bëgg bëgg koo def walliw istihdaad bi mu préparation bi suñ borom daf ko ci jiital ñi nga xamee ni yonant alayhi salaam day judduwaale istihdaad mooy day judduwaale nubuwa naka noonu alwaliyu kaamil moom it day judduwaale istihdaad bi mooy wilaaya gi nga xam ngeen ni waliyu ñett la bi judduwaale wilaaya ak bi nga xam ni dafa judduwaale wilaaya waaye tamit ginnaaw bi mu judduwaale wilaaya deful benn effort ci addina am na fu darajaam yam bokkut ak ki judduwaale wilaaya bu nag laq wilaaya gi dugg ci biir jaam yi di leen defar di leen gindi di yëkkati seeni daraja di leen jéggulul yàlla di leen texeel di yem ak daraja wàlliw bi nga xam ni du na wilaaya muy istihdaad bi waaye bi mu ñëwee dafa korosé le bara moom beneen wàlliw boo xam ne moom judduwaalewul istihdaad dafa jàng ba xam wàññi ko teg ci alal kitaab wa sunna ba mujj suñ borom defal ko alfatul akbar mu bokk ci wàlliw yi bu dee yonent nag moom day judduwaale wilaaya yi kooku moom obligatoirement la day judduwaale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mënta nekk yonent te nekkul wàlli ba noppi balaa nekk yonent day nekk wàlli ba noppi xëy na loolu beneen waxtaan la waaye taxuñoo jóg gaa ñooñu mooy ñi nga xam ne bu ñu dikkee addina seeni jëf yëpp al amalu al amalu saali ala jëf yëpp al amalu saali ala alxuraan bi ñu ne ko ni inna allazina amanu wa amilu salihat kaanat lahum jannatul firdawsi nusula xaalidina fiha la yaquuna anha hiwala borom ni am naa sama jaam ñoo xam ni dañoo am li ñuy tudde al imaanu billahi xaqan dëgg-dëggi ngëm gu mat gu matale gannaaw ba nag yemuñu ca dañoo def li ñuy tudde al amalu saaliha jëf ju ju tedd seen biir ak seen biti lépp yàllay kese la suñ borom ni yooya gaay waajale naa leen àjjana ji ñu tudde firdaw firdawsi àjjana joojee mooy àjjana ji nga xam ne mën nañu wax ni jamono bii fala Cheikh Saliou Mbacke tëdd di xaar di ñuy tudde walu buft ndax suñ borom moo ko wax ci alquran te muy lu wér jannaatul firdawsi janatul firdaws nag moom xam ngeen ko <clears throat> suñu borom ne falaa sama jaam ñu ñi nga xam ne dañoo meloon ni Serigne Saliou nga xam ne seen biir ak seen biti lépp dafa baax amuñu daray ayib ci saaxir ak ci baatin buñ fa demee xaalidina fiihaa mu ni ñoom àjjana jooja luñ fa yàgg-yàgg duñ ñaan mukk affectation dama aadama dana nekk fi barab ba yàgg mu ñaan yàlla affectation ñi nga xam ne ni ci addina fi barab di liggéey ba yàgg affectation ngir barab ba ko sàppi wala mënatu fa ne wala neexatu ko mu ni àjjana yi firdawsi nag loola amu fa neex na neexit woo xam ne ku fa nekk doo demandé yàlla mukk affectation mukk mu fasiroone yi biñ koy firi dañ ni lay sa yaxaafoona xuroojan anha mooy ñoo xam ni xalaatuñ mukk ku leen affecté léeg-léegi ba tey nit ne fi barab béréb ba neex ci moom du bëgg ko affecté waaye gaa yi ñu bind lettre de affectation yónnee ko pour ñu affecté ko suñ borom ni àjjana jooja ña fa nekk bu ñu tiit bu ñu ragal kenn du leen affecté fa la ñu nekk daa yi man moo tax nag ñu mel ni Cheikh Salim Mbacke mii ñu bëgg a waxtaane bi ñu dikkee lañ jëkk a mooy xëpp seen xool démb xam ngeen ni dañuy wax ni jullit dëgg dëgg ñaari bët la war a amee bët bi muy xool àddina ak bi muy xool àllaaxira ñoom Cheikh salim Mbacké dañoo yore ñaari bët bëtub addina bi ak bëtub àllaaxira bi côté spirituel ak côté temporel xëy na ñu àgg ci te ko suñ borom loolu la wax ci alquran suratul asr suñ borom daf ni ya yoo lesina amanu ya yoo lesina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat li qaddin wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wala takunu ka lesina naswa laa fa ansa'um anfusuhum أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر إن برمني يني وحني جمجين فكني جم جد جلة جناو جم رجال يالله جم مات موتة ورطب من جناو رجال يالله نك نعم خب سبب نعم نياري بب بب خال أدينا أك بيجي خال الآخرة من نخ أدينا يوم التاي أدينا monde buy jeex la daarul fanaa la mu ni ko nag xippil sa bët nga xool beneen bët bi kër gële nga xam ni mooy kër gu dul jeex du rab mukk mukk mukk mukk mukk moom borom rab bi si jàll ragal leen dëgg-dëgg seen boroom ndax seen borom xabiir la mooy ko am expérience mooy ko xam ne dara du ko rëcc li ngay xalaat ci sam xel li ci sa biir ak li ci sa biti lépp dara du ko ci rëcc léppay teewandoo fi moom xabiirum bi maa taamaloon ngeen jëf muy lu nëbb muy lu feeñ xam na ko mu ne nag yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla te ragal ma mu ne waaye bu leen mel ni ñi nga xam ne bi ñëwee addina dañoo fàtte contrat bañ si ñent woon ak seen borom alastu bi rabbikum xaalo balaa yaa rabbi contrat boo dañu fàtte nangu ni yàllaa leen moomoon xamoon nañ ko bëgg ko xam ne yàllaa leen war a moom moo moom ba faaw firi contrat ba suñu borom ni ñu wax ni gëm ngeen ma te ragal ma bu leen bokk ci ñooñu bu leen bokk ci ñi nga xam ni dañuy firi contrat bi si woon ak seen borom rabistoo jàll fii ci àddina rek boo siñanteeg benn société contrat wala boog benn réew wala benn association wala nangam bu fekkente ne respecté contrat bi am na daan yu ko cay fekk waxuma nag suñ borom rabbi situ jàll suñ borom ni contrat bi ngeen signante woon ak man na ngeen fexe ba bu leen ci dindi dara lu toll ni fepp sara yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla te ragal ma mu ni ndax gaa ñi nga xam ne biñ ñëwee àddina dañoo firi contrat biñ amante woon ak seen borom ca yow mu ala sib rabbikum ñoom day na leen wóor ni nii ñu ma fàtte woon man yàlla ci àddina bañ maa booleeg dara bu yow mal xiyaamee bañ maa jaamu bañ maa topp bañ wéy samay ndigal bu boobu yow mal xiyaamee noonu laa leen di fàtte ci sama sawara wa la qadar allah wala saman su borom teg ci ni waaw maa ngi leen xamal ne day ñooñ waa safara ak ñooñ waa jànnatul firdaw si mënuñoo yemoo de déedéet ku nekk ci safara way tàkk di baddaañu te kat doo dee doo dund la yamutu fiiha wala yaxyaa doo dee doo dund mënta yem ak ki nga xam ne mi ngi ci àjjana dina béy lépp lu mas a soxla te itti woo ko day nekk ci kanam di teewandoo ci kanam ndax xam ngeen ni bu leen fàtte ni waa àjjana yowmal xiyaam ñoom laf su kun lañuy amé baatu kun baatu kun boobu nga xam ni borom lenn ci ay nitam fii ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam waaye yow mal xiyaam nag ñëppay amandoo baatu kun boo leen ko dugg àddina rek da nga amee baatu kun mooy loo bëgg mu nekk rek loola nekk boo doon xool am ndox sax ba yàgg nga ne ko ndox mi nekkal soow soowu mbaanik mu daal di nekk soowu mbaanik meññant moo doon xool ba yàgg nga bëgg mu doon mango boo ko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yow mal batu baatu kun la ñuy amee mooy luñ ñu nekkal rek loola daal di nekk luñ bëgg rek loola am fa saasa moo tax nañu bëgg waxtaane jëmm jooju di cheikh salim mbacke nga xam ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci sëñ tuubaa waxtaane ay jaar jaaram dana nu sokk jom ndax sallallahu alayhi wa sallam kat suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko naanu naqsu alayka ahsanal qasas du ma deñ mukk di la waxtaane jamono bu nekk gaa ñi nga xam ni ñoo fi jaar ba jàll seen jëf yu rafet ya seen doxin yu rafet ya seen melokaan yu rafet ya du ma deñ mukk di la ko fàttali yow yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñun tamit du ñu yokkat mukk ci di waxtaane gaa ñu baax ñii ñu mel ni sëriñ saalih rawatina njabootu sëñ tuubaa gi ndax ni ñoom ay tànneef lañu yàlla nañu ko yàlla fayal gis nañu sëñ Tuubaa nee na xoqal bu kaaw ala saadaati amwaati tabki araadi alihim ka samawaati abki alihim wa arju fi lbukaayi xaddan ridwaana man fii xaabo bil xalaawaati mu ne ah kay li suñ borom wax yonent bi kay yey na lim ko ni danaa la nettali jaar jaar yi gaañu baax ña fañ jaaroon seen jëf yu rafet ya ngën ji rafet laa lay nettali sëñ Tuubaa ni yey na xam ngeen ni waxtaane naa ko ba tey ci xoqa daañu wax ni sëñ Tuuba li tax mu bind xoqa alxaadima jaxate kala moo ma sa jóg feltoog moom ci kaw yoon nee ñu ni ko innama amalu binniyaati nee ñu sëñ Tuuba ni ko wa niyati tabarku bi saadaati nee ñu Ahmadu Seex alxaadima jaxate kala moo ni sëñ Tuuba yonent bi day nee na jëf yëpp yàlla nga ko teg ci yéene maanaam acte yëpp mu ngi tegee ci intention acte yëpp mu ngi tege ci intention loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam acte yëpp rek maa ngi ko teg ci intention léegi mu waxee loolu sëñ Tuubaa ni ko man de sama intention mooy barkeelu ca gaañu baax ni di leen roy di leen topp di leen fàttaliku sama xel du jóg ci ñoom mukk nee ñu loolu la sëñ Tuubaa tontu alxaadima jaxate kala mais ba mu delloo këram mu daal di bind téere bi ñu tuddee xuqal bu kaaw ala saadaati amwaati tatkiiraat bi àllihim ko samawaati mu ne ah kay yàlla na jaadu na ñenn ñi ni déedéet kalimatu xoqa rek la bindoon ci benn kayit yónnee ko nee ñu sëñ Tuubaa doxee ci bindu xoqa sëñ Tuubaa ni yàlla na jaadu na ci fu ñu toll ñuy fàttali ko sang yu mel ni Cheikh Saliou Mbacké mii yàlla na jaadu na fu ñu toll di fàttaliku sang bu mel ni Cheikh Saliou Mbacké mii radiallahu taala anhu mu ndax ku mel ni Cheikh Saliou Mbacké suuf saa koy jooy asamaan juróom-yaar yi ñu ngi koy jooy mu ni kon asamaan kon keneen ku dul asamaan asamaan mi nga xam ne amul xel jamaadaat la maanaam jamaat la suuf mi nga xam ne amul xel jamaat la jamaadaat yooyu di jooy nit yàlla yooyu ngir barkeb jaamu yàlla bi ñu doon def ci kaw suuf ak topp ndigali yàlla yi ni ñu nangoo topp ndigal seen borom ba tax ñu di leen jooy di leen fàttaliku mu ne kon rawatina ko amul xel rawatina ko am xel ginnaaw ñu amul xel ñooy fàttaliku nit yàlla yooyu di jooy kon rawatina nag ko am xel mu ne man Sëñ Tuubaa de man danaa leen jooy man danaa leen jooy ni leen asamaan ak suuf di jooye mu ne waaye nag yaakaar naa ci jooy yi ëllëg yomal xiyaam yàlla fay ma ci yool bu rëy jooy yi nag xam ngeen ni du jooy rangooñ mooy jooy xol mooy foo toll di leen fàttaliku seeni jëf ngay fàttaliku ni addina bii nga nekk lu mu neex neex lu mu nëtëx nëtëx am na ku la gën gën ka la gën ñu di ko wax Cheikh Salim Mbacke nekkoon na fi te teewul yàlla jëlee ko fi mu wóor la ni yow loo baax baaxit ñu moom foofa ngay mujj rek fa jëm rek foofa nga jëm yooyu nag boo ko dee xalaat mu wóor la ni loo baax baax loo am am daraja loo am am ay bien am na ku la ko fi ëppale woon fii bër ci démb muy Cheikh Saliou Mbacke gën laa xam yàlla gën laa bëgg yàlla gën laa xam yonent bi gën la koo bëgg gën laa xam sëñ Tuubaa gën la koo bëgg te mosoo dajeeg jenn waxam mu naan ku ma gis texe mosoo dajeeg jenn waxam muy wax lu xotti sariya mosoo dajeeg jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub lislaam yow nag nga ni yow daal yaakaar nga ni moom nga yaakaar wala ci moom nga aju te foo yaa ngi wax luy xotti sarub sagub lislaam yaa ngi wax luy xotti sariya yaa ngi wax luy ñaggi ñagub lislaam boo delloo sa xel nag nga xalaat ni Sëriñ Saaliw gën bu dee yegg ci yàlla moo ma gën a yegg yàlla ci yàlla bu dee xam yàlla moo ma ko gën a xam te mësta xotti sharia mësta ñaggi ñagub lislaam mësta wax ni dañ maa mbaa yàlla mësta wax ni mësta wax ni te xam nañu kenn ku ne xam na ni àggoon na foo xam ne yàlla toppatu ko dara waaye taxul mu bàyyi ci sharia lu tal ni dee deewu we kon nag bu fekkee ni da nga koy tudde woo ba noppi mel ne neen yow yaa mel noona mooy li ma waxoon ci ay jamono ci benn xutba fii ci tabaski ji te ay nit jël ko daggate ko naan Moustapha Mbaye Sam dani sëñ Saliou mënta defar déedéet yéen ñooñu nga xam ni yéen a ñag gi ñagub euh, sariya tasaare euh, xotti sariatul islamiya ba noppi nag di tuddoo woo sëñ Saliou laani ba keroog may faatu li féeg a koy def danaa ko Serigne Saliou Mbacke defarul nit ku xotti sariya ku weddi nga dem laaj ko Serigne Saliou Touré bu Thiès Serigne Saliou Mbacke defarul kuy ñag ñagub l'islam ku weddi nga dem laaj ko Cheikh sa Cheikh euh, Saliou Mbacke mii fi nekk wala nga dem seeti Cheikh Moustapha Saliou ku mu ci mën a doon gisoo ci kenn ci ñoom koo xam ne nii te bu fekkente ni rek ak may la wala daraja la wala maqaama la wala nangoo jaamu yàlla la wala xam yàlla la gënoo leen koo xam gënoo leen koo bëgg gënoo leen koo man te gisoo kenn ñoom ko xotti sariya lu toll ni dee deew kon nag boo Cheikh Saliou Mbacke danaa la wax ni jote woog sëñ Saliou dara sëñ Saliou defaru la yow defaru woo ndax boo defar woon da ngay fexee mel ni ñi sëñ Saliou defar sañ xam leen ka Cheikh mm, Saliou Touré bu Thiès naka noonu ko salika ila axiri ila axirihi waaye sëñ Saliou woo ma defar te foo topp foo toll di xotti sariya di ñaggi sa sagub lislaam ak ñagub lislaam du ma la ko nangul gaa ñi nga xam ne bi ñëwee addina dañoo topp seen bakkan malheureusement ñoom bañ ko daggatee def ko ci ay whatsapp di ma jéem a jabuliise dégg nañ ca luñ ca ba dégg nañ ca luñ ba nit moom buy wax ngir yàlla wallahi boo jógee ngir fexeel ko yaay mujj daanu ca kàmb ga rek yaa fay mujj rek koo xam ne lu wax yàllaa tax man du wax ci par parloo du ma wax ci dara damay wax ngir yàlla rek ak si Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu Sëñ Tuubaa nee ñooñu danaa leen jooy ñu mel ni Sëriñ Saliou Mbàkke danaa leen jooy de gaa ñi nga xam ne nag dañoo dindi contrat bañ si ñent wala seen borom te rabba sun borom ne ala subra dukum sun borom ne la ñooñu buñu ñu faatoo ñi nga xam ne dañoo dindi woon contrat bi ma si ñent wala ñoom ñooñu buñu faatoo asamaan du leen suuf du leen jooy seenum sax du dem ci ñoom ma bakkat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin loolu la sun borom wax te suratu duxaan cheikh salim di njariñal adina waaye di njariñal alaxira li nga xamal ni njëriñal addina la mooy dañu wax ni dëgg-dëgg njariñ alxuraan dëgg-dëgg njariñ day doon lu fi des ba faw di jariñ ñooñ waa jamono wa amma ma yanfa'u naas fa yamkus fil ard dëgg-dëgg njariñ mooy jariñ ñooñ waa jamono ajjuma bi weesu rek xutba bi ma doon def wax naa ko ci ma ne ab jullit daa war weesule boppam njariñam di yem ci boppam rek maanaam tuba yi paate képp ci borom tuba yi paate képp ci borom ab julit daa war a weesale loolu boppam ab julit njariñam dafa war a law muy jariñ julit ñëpp te yàlla rekk tax rabistu jàll dem bay jariñ jamaadaat yi ak xayawaanaat yi te yàlla rek tax Cheikh Saliou Mbacke yeggoon na foofu njariñam xayawaanaat yi gis nañ ci seen bopp njariñal Cheikh Saliou Mbacke julit ñi gis nañ ci seen bopp ñi dul ay julit sax gis nañ seen bopp ci njariñ li Cheikh Saliou Mbacke amal waa addina ñi dul gis nañ njariñ li Cheikh Saliou amal waa addina radiallahu taala anhu mhm. ñu dul ay julli sax gis nañ ci seen bopp te danaa ko wax ci kanam incha allah suñu borom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak boo gisee ma ni la danaa la nettali ay nettali yu rafet ci gaa ñi ne fi jiitu woon ba jàll mu a ah, mu ne boo gisee ma di la ko wax mooy damaa bëgg mu mën a dëgëral sa xol ba nga xam ni yàlla rek a yàlla loo mën a gis àddina xam ni bis penc dana a ñëw loolu rek laa ci jublu ma bëgg mu dëgëral sa xol sokk la jom ba nga gën leen a mën a roy ndax ëllëg ah dana ñëw de Cheikh Saliou Mbacke radiallahu taala anhu moom it loolu la xamoon moo tax ak njëlbeenam ba ci mujjam kenn xamul ci moom lu soppiku xanaa lu dul bi jaaw bi rek nam doon jaamoo yàlla ba mu nekkee ci jamonoy ndawam ba bi muy nekk mag noonu lay jaamu yàlla dara soppikuwu ci wenn melo wi rek wenn melo wi rek nga xam ne fajar gi muy génn àddina kurus gi nga xam ne moom la daan defe ay lawraatam kurus gaa ngi ci ay law loxoom muy lawraat di lawraat ba suñ borom tabaaraka wa taala jël ak ruuxam yóbbu ko fa ko nga xam ni nii ña jëkk ba dikkee fekk nañ kurus gi ci loxoom radiyallahu taala anhu ah, loolu de mooy li yonent waxoon li suñ borom waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ day rabbi sit wa jàlla daa ne ko wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba keroog jibril ba eh, di ñëw di jël si sa ruugi wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin na nga jaamu sa borom ba keroog génn àddina di ñëw ba keroog faatu di jot yax saal yu mbàkke la meloon jamono bu nekk ci jaamu yàllaam akuk bëgg yàllaam moo tax nu bëgg a waxtaane nag ay jaar-jaaram li ñu doon wax lépp muxaddima rek la saayir bi nee na man araqa walliyan fa ka annama ahya yëpp ku waxtaane benn walliw ci walliw yàlla yaa ngi mel ni ku ko dekkalaat ñu nodd takku sànni mu ne yàlla yi ngi mel ni ku ko dekkalaat dox ci kaw suuf ndax lu tax waxa ay jaar-jaaram mu loon loo xam ni daañu ko mën a roy jëriñu ci addina jëriñu ci àllaaxira su ko defee bépp jaam ko roy tuyaaba ja say bàyyi ko yàlla du ko yónnee tu wàññi dara ci tuyaabaam moom sallallahu gis ni kon di mujjooj ñu bëgg a waxtaane muy Cheikh Salim Mbacké mu ngi gane addina ama xalsa sin min hijriya mooy gàddaay gi amee junni at ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci dikk àddina di bisub alxamis ci weeru koor bisub alxamis ci weeru koor yax moom lim jub addagani indi na ko ci irwa na benn sutam bu ñuy wax sëriñ xalil mbàkke ayada allah wa nasara suñu xarit la suñu wala la bindina ci moom benn téere tudde ko jantub jamonoom wala ay téere sax ngay wax boo demee ci téeréem boobu nga xam ni binaa muhammadun rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam allahuma rabba hati dawati taama wa salati alqaima آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وقص الله مقاما معمودا التي وحت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بريمي تيرم بابو موم sëriñ Xalil Mbàkke suñu xarit la suñu walla la ñu koy ndokkeel ñëw na ba fii ci suñu daara ji seet suñu ngir jëmmi yàlla nee na moom sëriñ Xalil ca téeréem ba Seex Saalihu Mbàkke mi ngi dikk addina gu dikk ajjuma ci weeru silqi ada 22 septembre 1915 gis ni kon bu fekkee ni Cheikh محمد Lamine ak Dagani ñoom ñaar seen ñaari wax yi kii ni ajjuma kii ni guddi alxamis waaye wax yi benn la guddi ajjuma gi ak guddi alxamis gi soreewuñu man loo xam ni sax benn la ci waxin bi rek la noonu boo xewoon ni nag képp ku yàlla namm ci moom mbir da koy préparé faaw mu jox ko maanaam disposition yi disposition yi faaw mu judduwaale ko te mu wax léegi li saayir boo xam ni isa arada allahu amran ayya allahu lahal asbaab أي الله له الأسباب وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دفع بين بس صلى الله عليه وسلم دي وقتان دوالي سنبرمي قدر الإلهي دوالم ينيخي أو ينقري النبي صلى الله عليه وسلم di waxtane ndir دقائق يتي نيك اك سيو سيو لا خاني سن بروم دا نكو جيفلانتي اك جامام ني ما سونو سيرن با صاح شيخ احمد بامبا رضي الله عنه واخنا كو سي مسالك انا سالته دقيقه ليس يرى كيفيه لها في تدبره انا سن بروم ميرم دا فا سيو سيو سيو لو ري ريوم خل لو مانا ستنتل ستنتل منو فخه با خام ميري نم كاي دوخالي تي تيو بارام رك ربي سي تو جل جلاله صلى الله عليه وسلم نك دي واخ dogali sun borom yi ak sañ-sañam bi ak coobareem lali wa salama amon benn waay bu wax xusmaan xusmaan badrin julit ñëpp dañoo dem ca xare ba moom mu xëy dem toog ca tooj ga mooy ca penc ma jigéen ñi romb ko fa di rooti sànni ko sër ko waddul yow doo góor góor ñëpp nga ca xare Ousmane loolu naqari ko mu daal di jóg ko ñu liggéey mu jóg jël ngànnaayam dem ca xare ba di xeex nee ñu bi mu ñëwee fataxlu ci biir xare bi nekk jàmbaar di rey loo xam ni mennum Seydina Aliou képp moo ko ëppale lu rey ci yéefar yi waaye ci biir njàmbaaram googule yonent bi di ko xool ba yàgg mu ni saxaaba yi ku bëgg a gis kuy dem safara xoolal waajee ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bàyyi njabootam bàyyi alalam bàyyi léppam ñëw sataxlu ci xare bi di xeex ngir yàlla ba noppi yonent bi ni bu dee safara la jëm ama ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujj wal iyaasu ñu daal di jël mbir mi daal di koy transféré ci seen bopp xalaat dal ni kon xëy na ñoom it maa du loolu da leen a dal te yonent bi du si leen ko wax ñu nekk ca loola ba xare bi jeex fekk xusmaan beleese nañ ko beleese yu bari bu xare bi jeexee mu dal di daanu tëdd léegi nag am ci saxaaba yi ñu ñëw wër ko di ko ndokkeel ndax booba saxaaba yi bu nit masaana dee cib xare dañ koy ñee ndax yàllaa ko yonentam ñoo ni képp ku dee cib xare àjjanaay sa yoonu kër àjjanaay sa dëkkuwaay bi nga xam ne ñëw nañ nag ñee ko ci loolu nag di ko ndokkeel mu ni eh, bàyyi leen ma man xeexuma woon ngir lislaam de inna li nga ni lan mu ni xew moon ngir lislaam sama dëkku maam bii di Yasriba muy a Munawwara moom laa doon défendre rek ba kenn du ko nat moom ko loolu rek laa doon défendre waaye défendre ma lislaam de ñu ni laa ilaa bi nga xam ne nee nañ rek mu daal di jël ab xeej jam boppam daal di xaru jekkali boppam daal di dee yonent bi sallallahu alayhi wa di ñëw daal ni waaw waxoon naa ko nit day dana aw yoonu àjjana di kondam kondami di kondam kondami ba digganteem ak àjjana benn sebre moo fa dox sebre ci wolof mooy sa diggante baaraamu day bii ak sa baaraam bu guddi bii nga xam ne moo nekk ci diggante ñaari baaraam yi diggante baaraamu sànnikaay bi bi ci sës loolu bu fekkee ne tàllal nga ko bam jeex tàkk loolu la wolof di tuddee sebre mu ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit day dana jaar yoonu àjjana di jaar yoonu àjjana ba diggam ak àjjana dara doxu fa lu dul sebre rek mooy benn jéego rek mu dugg àjjana mu daal di jëf waa safara dem safara comme noonu nga xam noonu la Xusmaan def mu ne nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba diggam ak safara dara dara du xufu lu dul rek benn jéego mu jëf-jëf waa àjjana suñu borom wëlbati ko yóbbu ko àjjana loolu lépp lu ci ne saxaaba yi firndeel nañ ko am na benn yahud bu dëkkoon Madina Munawara bi nga xamee na sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xeex fekk booba dañoo def ku coalition ci ni bu yonante bi di xeex ku nekk maanaam ñoom bu fekkente ne sallallahu alayhi wasallam day xeex war nañ koo jàppale ñoom it bu ñu xeex yonent bi war na leen jàppale jiir googu nga xam ne ñoo defoon yonent bi ak yonent bi coalition moom mu bokk ci bi nga xamee ni ma ngay dem di xeexi di xeexi xeex di xeex ba yàlla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñëw tiim ko naan ko yow santal yàlla yow day defaar nan nga sa diinay maam ba yaa ngi nii di dee mu ni défendre diinay maam lan man l'islam laa doon défendre de ñu ka ko yoon yoon ci yàlla Muhammad nga àndaloon di xeex mu ne ah man lislaam laa doon def défendre bi mu waxee loolu rek daal di faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ni ku bëgg gis kuy def àjjana xoolal kii moom ngay dégg léegi-léegi borom xam-xam yi di ko lépp naan koo xam ne mësta julli mësta woor mësta nat asaka mësta dem màkka mësta def dara ci diina daal lu lu les mën a teg baaraam ba nuppi day dem àjjana mooy waa jooju mooy waa jooju ma ni kon bi sallallahu alayhi wa sallam waxee loolu nag ni ab jaam dana jaar yoonu àjjana ba dara di suuk lu waaxu tàbbi rek suñu borom wëlbati ko mu dem safara noosu billahi mina ab jaam dana jaar yoonu safara ba dara di suuk lu rek mu dem safara suñu borom wëlbati mu dem àjjana bi mu waxee loolu Seydina Omar dañu bërit ni ko kon yow ki yàlla yoon yónni jërëtul ñuy sonn ci dara na kenn ku nekk nekk ca la la neex rek bu yow man xiyaamee yàlla atte mbir yi nu ko soobee mu ne ko déet Omar kullun muyassiru lima xuliqa la jaam bu yàlla bind bu nekk wutal na ko ay disposition wutal na ko préparation boo xam ni ca la ko tax a jóg ca fam nar a mujj ca lam jëm yoon woowa lay jaar mooy ki nar a dem àjjana faaw dana jaar yoonu àjjana rek ci nar a dem safara it na ko noonu kullun muyassiru lima xuliqa la moo tax nag saayir bi ni isa arada allahu amran aya allahu lahu l asbab Cheikh Saliou Mbacke ma ni kon mi ngi dikk addina kon noonu ma ko waxee ci 22 septembre ci weeru sil qihda di maanaam mille neuf cent quinze ci la dikk àddina waa juróom wu góor xam ngeen ko yéen ñëpp moo ko gën a xam mooy suñu sëriñ ba si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mooy waay juróom wu góor waay juróom wu jigéen mooy soxna Faati Jaxase radiallahu anhuma bi nga xam ne dikk na àddina nag sëñ Tuubaa dafa woolu Cheikh Mouhamed Lam a Adagani daal di jël aw kayit bind ca asaalix jox ko radiyallahu anhu moom tur woowu rek la bind jox ko saalix rek la bind jox ko wane ko ni ko nañ ko tudde sëriñ saalix cheikh mohamad lam jëm addagani daal di jël baat boobu sëñ Tuubaa bind def ci ay abyaat def ci ay bayit ca la waxee ni abxaa lana bi fadlihi saali baaxin lana jaa bihi saali أبقاء شمسا في سما دهره يثقل منه وجهه الكالعة أبقاه مكملا له عليه مباركا مصححا صالحا أو كما قال رضي الله تعالى عنه من موم شيخ محمد لم يجب أدغني بسن تبا بندي باتو صالح صالح الجحكو الصالح مدلدي def ci ay abyaat way mu ni moom sëñ Mouhamad Lamine mu ne man day maa ngi ñaan abra lana bi saaliha maa ngi ñaan suñ borom rabbi wa jàlla mu bàyyi fi Seex Saaliyu Mbàkke mu dund te am wér maa ngi ñaan yàlla bàyyi ko fi mu ne mooy ki nga xam ne nii daa dikk ngir nekk musleh nekk musleh mu ni mi ngi ñaan yàlla suñ borom bàyyi ko fi ba mel ni jant ni jant mel ni ci asamaan tiim waa àddina yëpp mu ni mi ngi ñaan yàlla bàyyi fi Cheikh Saliou Mbacke ba mu tiim waa addina yëpp moo tax sax euh, sëtam boobu di Serigne Khalil Mbacke moo waxoon léegi suñu wëlëre woowu téeréem boobu mu tuddee ko jantub jamonoom loolu Cheikh Mouhamad Lam Diop ak dagan yi moo ko ñaanoon yàlla mu maa ngi ñaan yàlla mu bàyyi fi Cheikh Saliou Mbacke ba mu nekk jantub jamonoom mu ne mi ngi ñaan yàlla mébatum sëñ Touba yàlla na ko yàlla mottalee ci Cheikh Saliou Mbacke mu ne maa ngi koy ñaanal barke akuk wér radiallahu taala anhu ah loolu de moom dëppoo na lool ak li sëñ Touba bind sëñ Touba day daa waxoon boromam ni ko asaali allasi yukammilul amal asaali allasi yukammilul amal yow suñ borom maa ngi lay ñaan na def ci nga xam ne mooy saalix mu yewenal samay mbir man na cee jublu gën gi mbindeef sallallahu alayhi ndax moom la doon tagg sallallahu alayhi moo ko tax di wax waaye ci barkeb tudde gim tudde Cheikh Saalih Mbacke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi nii yonent yàlla Saalih ala kulli xaal mi ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moom mébét mu sotti moo ko sottal sëñ Tuubaa ngi ñaan yàlla mébétam sottee ci asaalih mi ngi ñaan yàlla mébétam sottee ci asaalih moo tax mu ma asalaamin li yu sayol amal sali alasi yukamil amal ab ay ab yaat bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jàng qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salih wa huwa al musliu salli ala salih wa huwa al musliu saadiqu siddiqun salatan tusliu xam ngeen ni al muslih mo gën a mat saalih Cheikh salih bakay ñaar yëpp dafa daje ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yàlla nekk ci bokk ci saalixuuna yi eh, ndax boo gisee ulama wu tasawuf werante nañ ci mas naa ko laaj borom xam-xam bu mag bu géeju ci tasawuf ni ko waaw walliw ak saalix ku gën maanaam ku ëpp daraja walliw ak saalix waaye lam ma tontu tax ko xóot lool waaye li am ba am mooy yonent yi daanañu ñaan sax nekk saale ndax wax naa ko sànq gis nga bala nga nekk wàlliw bala ngaa nekk wàlliw yow mi nga xam ni yaa ngi topp waxtaan wi dangay jël rek euh, sa big nga jël sa kayit nga daal di def benn tomb ci digg bi daal di def ñetti rëdd mu wër ko gis nga nit ki balaa nekk wàlliw day nekk saalex ba nëpp maanaam bu fekkente saalix moo nekk nii ci digg bi al wilaayatu day ñëw wër ko wilaaya moomu nubuwa ñëw wër ko nubuwa boobu risaala ñëw wër ko nit mënta nekk wàlliw te nekkul saalix ba noppi nit mënta nekk euh, nubuwa maanaam mënta am nubuwa nekk yonant te amul te nekkul wàlliw ba noppi waaye nit mënta nekk euh, mursal te nekkul amul nubuwa ba noppi kon bala ngaa nekk wàlliw da ngay nekk saale naka noonu it bala ngaa nekk mm, euh, yonant da ngay nekk waliw waaye bala ngaa nekk ku yónni di mursal day fekk nga nekk yonant bu mooy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa léegi nag ma ne saalix moomu li muy baax baax muslix moo ko gën saalix mooy ko xam ni defaru na ba baax léppam baax na biiram baax na biteem baax na waaye defarul kenn muslih nag mooy koo xam ni daa defaru ba biiram baax biteem baax mu wàññi ko nag di defaree kooku mooy muslih Cheikh Saliou Mbacke muslih la mooy daa defaru ba baax biiram baax biteem baax mu wàññi ko nag di defar bu ma la doon limal ñi mu defar lakk jeexalu ko boo ko doon wàññi du jeex ci misaal danay wax ni doy na rek référence yow mal xiyaam jot suñ borom ni ay ca jaam ñi Serigne Saliou Touré bu Cees ni ñoo ko jóg ni sëñ Saliou wa ma defar kooku rek doy na na muus ak sëñ Saliou sëñ Saliou Touré bu Thiès wallahi doy na Cheikh Saliou Mbacke na muus ak yow mal xiyaam sëñ Saliou Touré bu Thiès mel ni moom rek doy na Cheikh Saliou Mbacke na muus ak doy ko référence damaa jëlee nag ñeneen ñi ci def ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga ña samp ay daari alquran di jàngale nek ci ak njub yow ngay business ñu mbolo mudul jeex di la dikkel nga jël alal ji di pasar pasare ba noppi nak di wote wo ak wilaayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm loolu day du woon jëfi Seex Saali du woon jëfi Seex Saali de gaa ñi nga xam ne dañuy tudd woo Sëriñ Saali bu nupp nekk ci lu naccoo diku nag soo ko dee wax ñu bëgg laa jaxase ak waa àddina ma ne naka ngay mën a nekkee ab waykat wala fecckat wala footballeur wala buxaaba wala jaaykatu dorog lu ne nga ne mën nga koo faj ba noppi di tuddewoo Cheikh Saliou Mbacke ma nettali leen benn xese rek Cheikh Saliou Mbacke ngi nii ci taaraam la toog ay taalibeem ñëw di ko siyaare am ci taalib boo xam ne daa takkoon ceenoog baat bu noppi fàtte ko ci baat bi fàtte ko ci baat bi sëñ Saliou Mbacke bi mu séenee ceen gi ci baatu waa ji bëtam rëfatul waa ji rek lay xool gaa yi rang di nuyoo di rang nuyoo ba waa ji nga xam ne moo takk ceen ji agsi ci moom bi mu sukkee bëgg koo jox loxo Cheikh Saliou Mbacke dañu nikk ci ceen ji bif ko ceen gi dagg waa ji ni ko xoolal ni ma gaañe mu ne ko yaa xotti sariya moo tax yaa xotti sariya moo tax wallahi lii la ko tontu xoolal ni ma gaañe mu ko yaa xotti sariya moo tax ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mësu koo jot lu dul dangaa xotti sariya Cheikh Saliou Mbacke bala ngaa jot jikkoom rek mooy laalal sariatul muhammadiya laalal sariatul muhammadiya rek boo laalee sariya rek jot ko li muy lewet lewet li muy baax baax bul xotti sariya mukk ndax sariya boobu moom la waajuram wu tedd wa sunu sëriñ ba Cheikh Ahmadou Bamba doon aar ba jóge fi ba jóge fi kon moom muslix la mooy daa defaroo ba noppi di defare daa defaroo ba noppi di defare loola taxoon bi mu ñëwee mu ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Tuubaa defoon ca mag ña waaw am na ci ndaw yi ñoo xam ne nii am na ci ndaw yi ñoo xam ne nii ña nga woon te daari Cheikh Saliou Mbacke waaye ma ni sëñ Saliou bu Thiès li Cheikh Saliou Mbacke def ci moom maa ngi leen di laaj ña toppoon sëñ Touba ku ci am lu ëpp loola ku ci am lu ëpp loola daraja mënta weesu nga teg sa tànk ci alal kitaabu sunna dina siraat al mustaqim al istixaama gisuma lu ko gën a rëy istixaama mboolem daraja yëpp istixaama ci gën a kawe te Cheikh Saliou Mbacke te sëñ Cheikh Saliou def na ko ci Cheikh Saliou Touré bu Thiès istixaama istixaama suñ sëriñ Saliou Touré bu Thiès bu dee istixaama rek ci moom la yem te daraja yëpp fa yàlla daraja ji ci gën a kawe mooy istixaama istixaama kon bu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Touba defoon ca mag ña ma ni ndaw lu ci nekkul ci istixaama laa ni boo ne sëñ Saaliw ma defarit man daa koy weddi du ma nangu de du ma nangu de sëñ Saaliw moom ñu defar ñëpp ñu ngi ci istixaama ñu ngi ci yi ndaw yi judd barki dem boo njaay nekk ci internet be kii di coow ak a wax rek di tooñ sëñ Saaliw rek tooñ sëñ Saaliw rek radiallahu taala jëmm jooju mooy koo xam ni dafa am ñaari sens mooy daa doon doomi sëñ Tuubaa ci deret waaye doon doomi sëñ Tuubaa ci ruu te xam ngeen ni doomi ruu moo gën a foor doomi deret waaye yàlla defal ko ñaari tawfiix yëpp moom radiallahu taala anhu loolu sax nag boo seetee nee naa ci ay waxtaan ba tàyyi mennum sëñ Tuubaa daal laa gis yàlla defal ko jagle bu mel noonu xaas mooy doomi deretam yëpp nekk doomi ruuxam keneen ku dul sëñ Tuubaa am na ci say doomi deret yoo xam ne duñ say doomi ruux duñ say doomi ruux ba ci yonent yi sax alayhi wa salaam xam ngeen yonent yàlla noox alayhi salaatu wa doomam ja moy doomi deratam way do doomi ruham du doomi ruham te doomi ruu mo gëna for doomi deret ndax doomi ruu moy doon secret bi won ci bàyyi ruuxam baatin bi won ci bayu ruham ba ku ko gis defe ni mooma ku ko dégg defe ni al waladu waladani waladul jismi wa waladul xaal waladul xaal yorisul maal waaye waladul kii waladul jismi yorisul maal waaye waladul xaal yorisul xaal wal maqaama loolu sëñ Tuubaa ko bind radiyallahu anhu sëñ Tuubaa nee na doom ñaar la doomi deret ak doomi ruux ñu waaw mu ni doomi deret alal li baay bi lay doon faqat jeex na li fi baay bi doon bàyyi daal moo koy doon fekkee ni baay bi bàyyi na fi ay taalibe doonte moom xamul lum réere biig xamul dara ci yàlla amul jenn wilaayatu amul dara ci yàlla waaye teewut rek taalibe yi fi baay bi bàyyi addiyee dañuy dajale moom lañ koy jox mu ni ko tuy moo tax doo ko doo gis mu def ko fu neex yàlla doo gis mu def ko fu yàlla gërëm ci bakkanam rek la koy def lii mu jënde ko gaasuwaal dawal ba jeex lii mu jënde koy oto yi nangam nangam rek waaye defal ci yàlla dara doo ko ci gis lu tax daa nekkul alwaladu ruux waaye daa nekk alwaladul jism waladul jism moom li fi bàyyi lépp moo koy doon rek jeex na faqat mu ni doom nag li nga mooy alwaladul xaal muni koku moy mooy xalu bay bi maqamam bay bi ak ngotum baayu ruuxam boobu moo koy doon ak sekkere ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko ko jur ci ru moko ko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum mbóotum ru bi lépp lay don mbotum baayu ru bi bu ko defe bu la yàlla defalul tawfiq nak yow ma doon loola da ko koy añaane waaye añaane gi du tee yàlla def na ko ba noppi rabbul sito jàll sëñ Saaliw Mbàkke radiyallaahu anhu dafa bokk ci ñi nga xam ni ñaari wet yooyu yëpp dañ faa fiiti sëñ Tuubaa mooy doomi yi sëñ Tuubaa la waaye doomi deret la it nag kon loolu sens la bu yàlla defal mais nag man seetlu naa ci ulama wu tasawuf la tàmbalee ci yonant yi ba ba ngay ñëw ci wàllu yu mujj yëpp ma ni gis naa ni ñoom ñu ci gën a bari seen doomi deret yi doon leen doon ñu seen baatin boo demee ci cheikh abdou xaadir jilaani ba ba ngay ñëw ci cheikh ahmadi tijaani ba ngay ñëw ci cheikh abou asan saasali ba ba ngay ñëw ci al muhidin ibnu arabi ba ba ngay ñëw ci alxasan al basri walli bu mag boobu mutasawif bu mag boobu le suufi bu mag boobu ñoom ñëpp kenn ku ne sa doomi deret doonut mbóot ma nga yoroon sa doomi ruu ko doon ci yow sa doomi ruu moo ko doon na ci yow ñooñu ma lim ñëpp amu ci kenn ku doomi deretam doon kenn ku ci nekk sa doomi ruu moo doon na secret ba nga amee woon ndax wàllu bi secret bi mu amee du wàll maanaam du alalam alali suñu borom la bu fi bàyyi koo suñu borom ci mooy seet ki nga xam ni moo ko yayoo te jagoo ko te war koo am mu jox ko ko moo xam yaa ko jur moo xam juróo ko ci deret suñu borom moom du xool loolu ndax suñu borom du parparloo moom day seet ki ko war am ki ko xam ne moo ko yeyoo rek mu jox ko ko moo tax sax ñëw na nga gis ci wàllu koo xam ne dana fi jóge te xamul ki koy doon gannaawam ñëw na bala ñu fay jóge rek daa daañu xam ki leen di wuutu ci liñ nekkoon kum doon lu gën a bari ñoom dañ koy xam di wax ak ñoom luñ dul wax ak keneen di def ak ñoom luñ dul def ak keneen moo tax nga dégg sëñ Tuubaa naan suñ borom wa hablana surriyatan tuddiimu al amala saali'a yaa xadiimu suñ borom nag ma may ay doomi ruu yoo xam ni man sëñ Tuubaa fi ma tegoon sama tànk fa la ñuy teg seen tànk xam nga surya euh, day firi sët waaye fii ci waxinu alquran firiwul sët doom lay wax doomi ruu doomi ruu moo ko tax di wax ci alquran surriyatan tayiba jooju sëñ Tuubaa di wax sëñ Tuubaa jubluwu ci doo sët yi de sët yi de déedéet doomi ruu la ci jublu surriyatan tayiba doomi ruu la ci sëñ jublu radiyallahu taala anhu waaye jubluwu ci sët yi de déedéet déedéet bu doon loola musibaam bu am na sët boo xam ni moom te ni te niwul Moustapha Mbaye noppi bëgg a kon fu mu koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul du la mën a may ker garab bu la la mën a may ker kon jublu ci doomi mm, deret yi déedéet maanaam sëti deret déedéet sëti ruu la ci jublu mooy doomi ruu yi doomi ruu la ci jublu moo tax mu ni wa ab la naa suryatan tu diimu al amala saali a yaa xadiimu doomi ruu nag bu ñëwee nu muy mel waykat bu bind na ko nee na innal muhibba liman yuhibbu mutiya doomi ruux foo ko gis tànc bàyyi ba lay jaar tànc bàyyi ba rek lay jaar na bàyyi ba daan defe lay defe nam daan nam daan nam daan rek riñ Musaa Ka rahimahullah nee na woon mboolem li dooni saalihiin ci sowu jant mbaa feneen yàlla na saalihu di seen jant bu tiim waa xarnu bi ah loolu de yàlla def na ko loolu de yàlla def na ko Moussa Ka nee na maa ngi ñaan suñu borom fépp foo xam ne nii ku ñuy tudde saalix nekk na fa mooy aji jag bi jagalaate fu mu mën a nekk ci addina bi maa ngi ñaan saalihum sëñ Tuubaa mii na ko tiim ni jant tiime suuf saalihum sëñ tiim ni jant tiime suuf loolu day yàlla dogal na ko jëmm jooju di Cheikh Saalih Mbakke radiallahu taala anhu nga xamee nag léegi bëgg naa wala toll na ci war a dal alquran alkarim ñooñu sëñ Tuuba dafa woolu sëñ am satu jaxate radiallahu taala anhuma dal di ko koy jox di ko joxuma la ko ngir ne da nijaayam mu loolu aada la te man sëñ Tuuba topp may aada dama la ko jox ngir def naa ci yow ay jikko ak melo yu bëgg nga def ko ci moom moom moomee ba mu ñëwee mu dal di koy jox ku ñu wax sëriñ alsaan jaxate sëriñ alsaan jaxate moomee moo ko yor di ko jàngal alquran al karim ginnaaw bi ko sëriñ Tuubaa dalalee ba noppi yi nga xam ne jàng na alquran ba wàccit jàng na fa as ndiir xam-xam xam ngeen ni suñ borom yoon wi nga xam moom la rëdd doo gudd ba jéggi ko waaye doo gàtt ba burum lu ko mooy loo am am wilaaya loo am am baatin faw ñu jaarale la fi ñuy jaarale ñëpp da ci anbiyaahu yeeg mursaluun sax jaar nañu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar foofu mi nga xamee nag yàlla dogal na xam ngeen bi sëñ Tuubaa di génn àddina ñu ngi toll ci fukki at ak ñett treize ans booba loolu rek la amagun ci at samay nopp nga xamee ne nii am na fukki at ak ñett sëñ Tuubaa génn àddina Cheikh Moudou Moustapha Mbacke radiallahu anhuma wuutu sëñ Tuubaa dal di taxaw ci njaboot gi ni sëñ Tuubaa taxawoon ci njaboot gi ca la dal di jëli sëriñ Saaliw yóbbu ko fu ñu wax ci ndóodi te mu tudde woon ko xusnul maxaab nga xam ne yóbbu na ko tindóodi yóbbu fa benn borom xam bu ñu borom xam-xam bu ñuy wax muxtaar jëng guyaar sëriñ muxtaar jëng guyaar moo leen yor foofa di leen jàngal ñoom njabootuk sëñ Tuubaa gi ak njabootuk sëñ Moodu Mustafaa gi mel ni si Ahmadu Gaynde Fatma ñoom ak sëñ Mbàkke Madina dafa nekk ab diir waajuram wi daal di fay ñëw waajuram wu jigéen ñu waxtaan ak sëñ Muudu Moustapha Mbàkke ni ko Seex Saalih mi day mu ko bëggoon a yóbbu mbaakol ñu waxtaanee ba juboo ca Seex Muudu Moustapha Mbàkke jébbal ko ko mu yóbbu ko mbaakol ci benn borom xam-xam bu ñuy wax saasum jaxate xam ngeen ni sëriñ saasum jaxate doomi a jaxate kala borom xam-xam bu mag boobule. booba ma nga ci dëkk bu ñuy wax aynul mahdi nga xamee ne nii riñ moor xaasum jaxate moomu way juróom jigéen yóbbu nu ko fa moom Cheikh Salim Mbakke riñ moor xaasum jaxate di ko jàngal xam-xam fa la jànge muxtasarul biñ gën a xam ci réew mi muy xalil fa ko jànge naka noonu it jàngal na ko lenn ci arut jàngal na ko it lenn ci bayaan waaye ànd ak loolu xam ngeen ni waajuramu jigéen wa soxna faati jaxate ni mu bëggee woon xam-xam ndax bu leen fàtte ni moom it borom xam-xam la woon moom soxna soosu ni mu bëggee woon xam-xam tax na ba mu nekkee ca sëriñ moor saasum jaxate dafa dem jëli beneen boroom xam-xam bu ñuy wax amit sow amit sow borom xam-xamu ilmu nujum la woon maanaam li ñu tuddee juxraat xam-xamu juxraat boo gisee Cheikh Saliou Mbacke ni mu maîtrisé woon juxraat nga xam ne bu toogoon fii di la wax Amérique ni mu mel da nga naan kii xanaa Amérique la juddoo yaroo dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France ni mu mel maanaam bu jëlee juxraat bi maanaam carte géographie bu ko yoree da naan kii réew ma xanaa fa la juddoo yaroo fa bu lay expliqué dalay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel bi nga xamee wajuram mu jigen andil nako amir saw momule serigne amir saw mu diko jangal xam-xamu juxraaf bi nga xamante ni nag yàlla dogal na mu jaar ci jaaru yaay yooyu bu len fàtte ni sëñ Tuubaa nee woon suñ borom ko yaral njabotam dina biñu defé ci ñom liñu ñu def ñom ci xam-xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam moo koy def ci ñom motax Cheikh Ahmadou Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy kidul de kidul de moy kan moy suñ borom rabbi sito jàlla waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dund ka faatu du leen mënu leen yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bi ma bëgg dëgg dëgg ci sama njaboot yàlla rek ko man yàlla la ko bayé motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi di bila bukkaay dellu waxaan ni an qis iyaali min abdalali wa bil xalaali qal sara sayadani yow suñ borom sama njaboot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njaboot gi na nga defar seeni mbir ci luddul ñi laxas ño xamni ne génn ñu Sénégal ñu upp ëpp ñëpp xam-xam génnuñu Sénégal de te ñu ëpp ñëpp xam-xam njabootu sëñ Tuubaa gi ñu ëpp ñëpp xam-xam nga xam ni ñu jóge ca université ya gën kawe dañuy ñëw ci ñoom di jàng waat ci ñoom xam-xam waxuma sax xam-xamu baatin bi dama ko jëlale bu saahir bi rek laa wax bu saahir bi rek laa wax aslahta xaali bi larti xaali bii di ya mu ni takat bu mu ànd ak coono bu mu ànd jooy moo xam jooy xol moo xam jooy ram ngoñ sama njaboot gi seen lépp na baax wallahi yàlla defal na ko ko wallahi yàlla defal na ko ko mun an kis iyaali min a dalaali maa ngi lay ñaan yow suñ borom sama njaboot na nga leen di orienté sa bopp ñu tàbbi ci mandigum réer buñ tàbbi ci mandi an kis iyaali min a dalaali sama njaboot bu ci kenn réer moo tax doomi sëñ Tuubaa mësta def luñ naan ah luñ naan acam maara day teeli mësuñu koo def an iyaali min a dalaali ba nga dalee dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter mën ngaa wax jenn doomi sëñ Tuubaa juñ la wax ni la mas naa def loo xam ni dañ koy suul moo tax ma ni ku dul doomi sëñ Tuubaa boo toppee ab tànkam di wàqi boo moytu da nga yem ci loola neexul de boo moytu rek yem ci loola neexul loolu préparation la jagle gu ko yàlla defal la mooy njabootam di nii kenn ci ñoom mësta kaañaañal li am am wilaya li am am batin mosuñoo xoti sharia lu tol ni dee deewu weer lutax señ tuba mo moo ne suñ borom na nga ma sàmmal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu réer bu ñu laate moo ku leen top da nga mucc adina da nga mucc alakhirah bu fekke deug la ci yow borom nee ci alquran man ya'di allah fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida man yàlla su ma nammee sama jaam texe maa koy orienté ba teg ko ci loxo yi ku ko nar a texeel te mooy wàlliwil mursid Cheikh Saliou Mbacke wàlliwil mursid la woon wàlliwil mursid mooy koo xam boo ñëwee ci moom mu orienté la ba ne la yàlla mi ngay seeta yi nii bu fekkee yàlla la tax a jóg waaye xam nga ni doomu aadama yi ñëw ci wàlliw bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali addina rek koy tax a jóg moom lay wut ci wàlliw bi bu ko defee dana ko am ba mu doy waaye ca la yem de keneen ki ci des moom diingat wàlliw bi rek ko tax a jóg moom bu ñëwee dana am wàllam naka noonu ki ci des li koy tax a jóg mooy am yàlla rek ñett ñi ñooy dikkal ab wàlliw ñett ñi ñett ñi rek loolu mën nañ cee joxe exemple bu leer ci Cheikh Abdou Khadir Jilaani ñoom radiyallahu anhu dafa am benn nitu yàlla bu mag xam ni nii yàlla xamal na ko baatin mu am nag ñetti doom aadama yu jóg jëm ci ñoom yàlla dogal ñu daje waxtaan kenn ki si Abdou Khadir Jilaani la tudd radiyallahu ki si Abdou Khadir Jilaani la tudd nga xamante ni ñëw nañu ñu daje ci maanaam bu doon ab tukki la daal dañoo daje ci benn garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom foo jëm mu ni man waliw sàngam laay seeti diw sàngam yi may wax ni ibnu ataayilaay indi na ko radiallahu taala anhu mu ne ah may defalaa jëm ah yow loo tax a jóg jëm ci moom Cheikh Abdou Khadir Jilaani man day am yàllaa ma tax a jóg jëm ci moom ma daal yàlla laa bëgg rek yegg ci yàlla rek keneen ki ne ah man day li ma tax a jóg mooy alal damaa dégg waliw boobu lu mu ñaan yàlla def ko man daal alal daal laa bëgg alal rek keneen ki ne ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ naan xam na baati nag am na kës foog am na nangam man maay dem ba xam ñoom ñett ñooñu bi ñu accès kenn ku nekk li tax a jóg yàlla xamal na ko walil mursid boobule ba kenn ku nekk mu orienté la mu xamal si Abdou Xaadir Jilaani ni ko yow li tax a jóg di nga ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko li la a jóg di nga ko am aji diingat ji nga xam ne moo ñëwoon ngir diingat si ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat mooy rafletu ci sa bët yi maa ngi jàkkaarloog moom maa ngi jàkkaarloog moom Cheikh Saliou Mbacke ñett ñooñoo ko daan dikkal koo xam ne addina dong lay wut ak ko xam ne yàlla rek ko tax a jóg ak sëñ Touba am koo xam ne nii moom dara taxu ko jóg lu dul jégg rek li ne ci moom mu ñëw di liñ kaar ak a xool ba xam ndax loolu dëgg la walla déet muy jëm joo xam ne nii daa sañ Tuubaa te mat ko sëkk ginnaaw bi mu liggéeyalee sëñ Muudu Moustapha mi nga xam ne moo jëkk a wuutu sañ Tuubaa ba am ngërëmam liggéeyal Cheikh Mahamadul Faadal ba am ngërëmam liggéeyal Cheikh Abdul Ahad Mbakke rawatina ba am ngërëmam Cheikh Abdul Xaadir kasaalika ñooñu ñëpp naka noonu magi Cheikh yi kenn ku nekk mu defal la ba nga ñaanal ko waaye ànd ak loolu nag mu jëf-jëfi boppam ji ko kenn fekkut loolu tax waykat ba waxoon ni inna al fata man yaqulu hanada laysa al fata man yaqulu kaana abi saayir bi nee na dëgg-dëggi waaja du koo xam ne nii li fi nekk lépp bàyyi ma ko fi def soo ko ne ku fi def lii mu ni bàyyi ku wax lii mu ni bàyyi ku def lii mu ni bàyyi lool laal rek mu ni bàyyi mu ne waaye moom deful dara dara dara mu ne kooku du waaja de nee na waaja dëgg-dëgg mooy koo xam ni loo teg sa loxo ni ku ko fi def mu ne la man mhm. ku gor njurul mu ni man ku gor ndookaa mu ni man ku taxawal xel kom mu ni man ila axiri ila axirihi daa jëf-jëfi boppam ana kan moo def li ñu tudde islaax jaami yàlla yi mu ni man ليس الفتى من يقول يعني إن الفتى من يقول ها ها هنذا وليس الفتى من يقول كان أبي جاني باري باري نيوم دانكا لسين باي ديف دونغ لا ني تيترو موم رك لا ني دامو واي نيوم ديفو ني دارا خالا ولا كثيرا خالا ولا كثيرا خالا ولا كثيرا لسين باي ديف رك سا باي ني وون نانغام سا باي ني وون كوما ديفال لي داغا ام لي سا باي ني وون mbëtt ma daanul mbëtt ma daanu moo ni mbëtt ma waxal mu wax garab ga naawal garab ga naaw saa bàyyi ni woon orange bu fuur sax boo bu ma la ko jaayloo boo ko jaay am saa ngërëm yow nag yow nag yow yow loo def yow li nga wax lépp de sa bàyyi ko def yow loo def loolu lañ lay laaj yaw amul kenn koo mën wax ni yaa ko jubal xanaa addee juñ la jox nga ni ko fuuf rek dawale koy gasoil ba mu jeex essence waaye dara dara dara dara loo defal yàlla anamu dara lu ñuy teg baaraam amul kon loo defal sa baay yow sa li mu def lépp jëfi boppam la ah, waaw boppam rek la de boppam la de li mu def pour moom la yow mal xiyaam de pour moom la yow mal xiyaam de waaye nag doom aadama yi ñoom xam ngeen ni ada da leen tënk ba nga xam ni daanaka dootuñu settantal dootuñu seet dañuy nañax nañaxi rek dañuy nëñëx nëñëxi rek dañuy nëñëx nëñëxi rek saahir ba nee na woon walil fata min maalihi ma qaddamat jaddaahu qabla mawtihi la maxtana innama almarhu hadisun baaduhu fa kun hadisan xasanan liman waxaa saahir bi nee na ah sa waay te ngaa góorgóorlu te fexe waajal sa bopp def sa jëfi bopp mu ni cam su ni day lam dépassé dawal ko ci aw yiw yow man xëyaam mu jiitu ko fa moom la ñeel de wan laysa li insaan ila ma shaa wan laysa li insaan ila ma shaa la suñu borom wax suñu borom nee na kenn ku ne li nga jëf boo ñëwee moom moom nga fiy fekk yowmal xiyaam li ñuy tuddee feret mooy say bagaas bu fekkee da ko feret boo ñëwee ci réew mi fekk ko fi léegi nag boo nekkee ma sàmba moom muy feret ay bagage am yow ngay dajale say bagage foofu ba dem jot nga ni cëpp dem ah boo demee ci réew mi doo fekk dara de dara doo ko fa fekk mhm. am benn xakim bu nettali wax ju saf xorom waaye ju maanaaw nee daal bu ma la doon misaal ji fi jaam ñi nee na dafa mel ni buur boo xam ne dafa woo aw dagam ñu leen dem leen ca tooli fur wi na ngeen ma wattal fur wi gën a neex te gën a baax nee ñoom ñett kenn ku ni ñëw yor sab saaku kenn ki ni man daal li buur bi bëgg laay def mooy damay seet yi gën a baax te gën a neex ma wittu ko di witt di witt ba watt ab saaku ba mu fees mu takk indi kenn ki ni man daal duma ci ci seetante man bu fuus bu fuusut bu baax ak bu baaxut mën na saaku bu fees rek keneen ki ni man daal damay boole xob yeeg yu fuus yeeg yu baax yépp witt rek bal ci yóbbu ah kenn ku ne ba nga indee sab saaku buur bi daal leen di boole tëj ci benn kaso daal ni ay ca kenn ku nekk nag la nga wittoon mooy sa sens bu jeexee foofu nga yem xanaa faatu rek ah bu keroogee ci wittoon lu baax ah dana am ngañaañ lu rëy rëy rëy ci wittoon lu baax kooko am sens yowmal xiyaam noonu la yowmal xiyaam noonu la waan laysa al insaan ila ma shaa mhm. moo tax saayir bi ni baye boo nga góorgóorlu ci def loo ci aw yiw mu jiitu la barsàqul muhammadiya mu ni ndax astam su mën a doon ñaara ngi ni diko xaar mooy barsàq dana fa ñëw wa barsàq gis ko aku melom. waye adina bi mu bayiko ko nit ñi dañu waxtane lim fi nekke woon innama mar'u fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga de fala budde mën ta ñak bu la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mën doon kon nak nga fexé doon ku jup ko mandu ko rafetal say jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbacke daa bokkoon ñi nga xam ni lim doon def lépp jëmmi yàllaa tax te dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy ji nga teg ci alal kitaabu sunna ji nga teg ci alal kitaabu sunna ji ci gën mooy ji nga jëf ngir yàlla ji nga jëf ngir yàlla ji ci gën mooy ji nga sellal ñett yooyu yëpp dafa daje ci seex Saliou Mbacke mooy jëf ju yàlla tax te tege ci alal kitaabu sunna ba nut mu sellal ko ngir yàlla rabbi situ wa jalla jalaaluhu loolu ñu xam Serigne Saliou ñëpp xam nañ ko ci moom ba ci kër googu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yàlla rek moo ko waral boo dee jàng riyaadu saalihin ci muqaddima bi da nga gis li saayir bi wax wax ju daw yaram la wax dani inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa xaaful fitana saayir bi nee na wallahi am na jaam yàlla sàkk ñoo xam ni biñ ñëwee addina kera bañ ne uwee dañ ñu tërit mel ni ñu tërit yewoo ci ay nelaw ni jàkk àllaaxira te xifuñu nangootu ñoo xif ni jàkk àllaaxira rek walbati ko wuñ wëñ ñu ndax lan ndax xam nañ ni addina daarul fanaa la lu yàgg-yàgg daa ñu fi jóge dem àllaaxira mu ni te kër gu jeex la ba faww guy sax la ba faww muy loolu tax ñoom bi ñu dikkee ñu fase addina wan gannaaw àddina jublu seen borom ngir ragal fitna yowmal xiyaam ndax ni ma ko waxee sànq suñ borom bu ko neexee mu ni la du ma la def nangam mu nuppi def la ko te tax waxam deñ moo tax ma ni sëñ tubaa ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara jëfam ji dafa sew a sew sew sew ba nga xam ni kenn mënu koo lijjanti ba xam nu koy defee ak nu muy roofee ak nu muy roppee nu muy dugal ak nu muy génnee ila axirihi ila axirihi alquran nee na am na najalu lazina amanu wa amilu salihat ka mufsidina fil ard tontu la mooy kalla la wallahi laa wallahi borom nee na maa ngi leen di laaj maa ngi leen di laaj man yàlla mu ndax yowmal qiyaam danaa yemale ñi nga xam ni dañ ma gëmoon di jëf lu baax ci gudd yàlla yi ak bëccëgi yàlla yi ak subay yàlla yi ba dee ñëw ñu dee mu ndax ñooñu danaa leen yemale ñi nga xam ni biñ nekkee ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ku yàlla defal ngëneel moom rek lañ fi nekk woon ba xëy faatu ndax ñooñu man yàlla danaa leen yemale ak maandu fekke wu ko ak maandu fekke wu ko loolu am suñu borom ni loolu du am mukk am nag alladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ardi kalla wallahi mënta am mu ba tey maa ngi leen di laaj man yàlla am nag alul mutaqina kal fujaar am nag alul mutaqina kal mu ndax man yàlla danaa yemale ëllëg ki ma ragaloon ba bàyyi li ma tere topp samay ndigal ndax danaa ko yemaleeg kàccoor bi nga xam ni bay wut li may tere toppul samay ndigal tontu la mooy kàllaa maandu fekkewu ko maa maandu fekkewu ko de tontu la mooy kàllaa maandu fekkewu ko ci topp sa ndigal bàyyi say tere su borom ni mënu ma ko ki nga xam ni moom daa dugg ci mboy gi jaar ci ñall wi am nag alul muttaqina kal fujaar mu ngi loolu mënta am mënta am du leen yemale muk du ma leen yemale mukk ndax wolof njaay nee na bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër waaye bu fekkente ni jàmbaar daa yem ak yaafus kon lu jàmbaar di jariñati jàmbaar bu yem ak yaafus moo tax suñu borom ni allasi xalaqal mawta wal ayaat waaye nag lu tax liyabluwakum ayyukum ahsana amala huwa al asiul xafuur man yàlla bu ngeen gisee ma bind dund bind dee dama leen a bëggee li ñuy tuddee examiner maanaam dama leen di def imtihaan mooy nattu leen xool ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bàyyi sama tere bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana ñu top sama tere nak ma yóbbu leen safara mu ni looloo tax ma bind dund bind dee waaye bu fekkoon yàlla daf ñoo bàyyi ci àddina bi rek bala xal ma daal lii ba faaw ak kon lu neex waaye def bi moo tax sayidna omar daana toog ba yàgg rek mu seet seet boo ci jës ci xool ko ba yàgg mu ni cay buru woon ak dee tey buru woon ak dee lu neex waaye def <laughs> wallahi wax na dëgg buru woon ak dee kon àddina neex de lay kon doom neex ndayam bul woon ak dee doom neex ndayam mhm. borom nee na allasi xalaqal mawta wal ayaat leebluwakum ayyukum ahsana amalan mhm. leebluwakum ayyukum ahsana amalan damay seet ba xam rek ñan ci yéen ñoo ragal ni dañuy dajeeg seen borom ba tax leen ni bandi jël bandi li fi yàlla tere te topp lim digle Cheikh Saliou Mbacke borom ci borom bokk ci borom itti yu kawe yi tayr bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sallam wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safaha suñ borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawe yi borom xalaat yu rëy yi mooy ñi nga xamni dañuy seexlu li yàlla tere li nga seexloo mbott mu dé daw jëm ci li yàlla bëgg ni nga wo naan bo maré ba mar xonjooj inna la atahala yuhibbu maal umuri wa yakrahu safsafaha suñu borom dafa bëgg borom jikko yu tedd yi borom makaarimal axlaax yi borom yu kawe yi borom xalaat yu waaye dafa bañ lool borom xalaat yu suufe yi mooy ñi xam ne loo xam ne yàlla bari na yërmande nekk ci lu naccoo di ko morom xam nga wax nga dëgg waaye kalimatul xaq yuraadu bihil baatil loolu la Seydina imaamu Maliki euh, Seydina Alim Karamala wa ci waxoon li nga wax dëgg la waaye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul xaq yuraadu bihil baatil nekk ci li naccoo dik li gën a bon li yàllaa ko yonentam tere xotti sareetul muhammadi bi naan sëñ tubaa amul morom ñu ne li nga wax dëgg la sëñ tubaa moom amul morom kenn yonentiwu ko waaye yow ab kàcckat nga ndax defoo li sëñ tubaa digle bàyyiwoo li muy tere kalimatul xaq yuraadu bihil baatil kalimatul xaq yuraadu bihil baatil li nga wax dëgg la waaye li nga def dara du ci dëgg mooy li wolof njaay di faral di wax naan xolata ko ma ne ko wax nga dëgg de wolof njaay day nekk ci la gën a bon ca caay-caay boo xam ne xol a takk maa ngi koy wax rek bi ma waxtaanee ci yaru plateau télévision yi dangay gis jigéen joo xam ni ma nga ni watt ak yaramu neenam feesal meesu toog ci plateau bi ñu jox ko émission une heure de temps deux heures de temps nee na mooy jàngal jigéen ñi nekk ci seeni kër di sëy di muur seenu yaram di topp ndigali yàlla yi di topp seen ndigali borom kër nee na ñooy ñoom ñoo leen di jàngal sëy te kooku kat am na doom bi soq ko bi jaaw yow mosoo dem kër mosoo sëy xamoo luy sëy naan yaay jàngale sëy ci télévision bi kalimatul xaq yuraadu bihi l baatil kalimatul xaq yuraadu bihi l baatil anam ñu bari boo ko ci seetee noonu la nga gis oustaz bu toog ci télé ñu jox ko une de temps lu muy wa lu suufeel sunu ñi rek lu muy wax mooy fexe ba gone yi dootuñu gëm seeni waajur dootuñu leen topp dootuñu topp seeni ndigal gëmloo gone yi ni leen seen waajur yi buñ leen santee nangam loolu lislaam wax ko lànk def leen nii def leen naa ah sariya di seen taay bu loolu yow daal li la yàlla sant man nga caa waaye bu la teen négocier ak sa ñaari waajur de ndax alquran nee na wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu waaye nag wa bil walidayni ihsaanan al ihsaan loolu farata la ju yàlla loo gàll saw loos ak say waajur na nga ko war a respecté donte sax ñoom la def moo xam bi daala moo yow na nga nekk ci la yàlla sant ba noppi nag ngay maslahanteeg ñoom waaye dogoog ñoom l'islam waxulu ko fenn dogoog ñoom fenn la la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox une heure de temps muy wax luy tax gone yi dogoog seeni wajur kalimatul xaq yuraadu bihi al batil cheikh sali mbàkke nag radiallahu taala hum moom xam ngeen ko mooy itte ji ci defar ndaw ci yar leen ci jubbanti leen waaye fexe bañ maneeg seeni waajur waxoon naa ko ci waxtaan woowu fekk na booba yàlla mi ma tiim xam na ni xutba boobu may wax te ma defoon ko tabaski te nit ñi dagg ko aw tabaski laa ko defoon tabaski daaw te nit ñi dagg ko naan Moustapha Mbaye Sam nee na kasa wa kasaa dafa am benn bis ñu ñaan ma ab conférence conférence boobu ma doon ci wax jikko ji Serigne Saliou mbakk amee woon nim laaye woon biir nim jube woon nim ragale woon yàlla nim baaxe woon ma di ca wax bi nga xam ne conférence bi jeex na ma jóg waaxu jëm sama oto genn góor daw dogale ma ñu mën day sama doom a ngi nii Cheikh Saliou Mbacké laa ko joxoon daari xel comme la nekkoon noonu la ma ko waxee de wallahi mu ne ah mu ne ma waaye su ma nuyoo rek damaa romb ci buntu kër bi su ma nuyoo dama romb ci buntu kër bi wax ma yu bari yu ko naqari ci moom ma ni baax na ma daal di dellu si ci daara ji ba ca ëllëg sa ma daal di woo ñaari dong ànd ak ñoom su ma dawalee ba jub fi ñuy def su ma doon defee conférence bi ma daal di yabal ñaari dongo yooyu ni leen dem leen ngeen laajte kër diw bu ngeen demee laajte leen ma diw ngeen wool ma ko mu ñëw ma ko woolee mu ñëw fekk ma ci trottoir bi maa ngi amee genn mbuusu tàngal mante fraise ma daal ne ko man day damaa ñëw ngir waxan waxtaan ak yow ak laayanteeg yow biir ndax alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwan ngir jëmmi señ Touba nga sagalal ma Cheikh Saliou Mbacké muni man luma def bay sagal Cheikh Saliou Mbacké mané ko dama bëgg nga sagalal ma Serigne Saliou Mbacké nangul mako bonu ba ma wax muni man nangul na la mané ko sa wajur da la woon xel kom ngir yaakar ni bo fa gën muni waw ma ne ko sëriñ Saliou Mbacke ba mu la yore daa bëggoon boo fa jógee gën sa ñaari waajur mu ni waaw ma ne ko sa waajur nag lan mooy ndey boo ko nuyoo danga ko romb ci bunt bi doo dem tàggu ko doo def dara yëgal ko mu daal ni bërit ni ma giñ naa ci Cheikh Saliou loolu tey lay jeex danaa di yëkkati tàngal jox ko ni ko soo demee na ko tuubal wallahi ba déwén sa dellu see ma dem dafa def conférence wa rabbul kaaba ak waxtu wi ba ma demee ni def conférence ba ma noppee ba jëmaat sama oto bàyyi baa dawaat dogale ma ni ma lu ma waroon ci kër gi wàcc na ma sama dooma ko gàddu léegi kon buñ la joxee sëñ Saliou Mbacke da ngaa war a góorgóorlu ci sagal sëriñ Saliou Mbacke say waajur nañ xam sa njub nañ xam sa bëggeel ci ñoom sa nangu leen a topp ci ñoom nangu leen a liggéeyal nangu leen a soofu sëñ Touba mi nga xam ne mooy sunu yaakaar fi dunya wala axira bi bi waajuram di dund ñi ma a daa nekk ci suufam rek te ñun ñëpp mooy suñu référence Serigne Saliou Mbacke mii waxuma la sëñ Touba mam fekk jamonom waaye magam yi dong sax mësta jàdd seen ndigal ci seen ron la nekkoon di xëy ci seeni i waaw di ca goon man defe naa ni sëñ Saliou Mbacke ni ma ko xamee <laughs> bari na ko jaar xel comme te xamee ko noonu malheureusement malheureusement yu bari man naa ko nett li sama diggante ak moom ci ay xew-xew waaye nag jëru ko jëru ko jëru ko mhm. am na sama sœur yoo xam ni sama sœur yoo xam ni moo leen dugal kër moo leen yóbbu kër donc yooyu du waxi dara su ko defee xam naa suñ mu di waxtaan wi jeexul waaye ñu yamale ko foofu rek ba beneen yoon incha allahu rabbi liñ doon waxtaane ci alfadilatu cheikh Salih Mbacké ah wax dëgg yàlla jeexut waaye daal nit la woon koo xam ni la yonent bi waxoon ni wala kenn ci xukamaaw yi sax moo ko wax mu ni wa amal li dunyaaka ka annaka taisu abada wa amal li axirataka ka annaka tamut xada foofu la si mbàkke nekkoon mooy booy boo nekkee ci àddina di dund na nga jëfal àddina ba àddina yaakaar yow doo fi jóg fekk yow kat àddina bi moyen rek la ni sañ ni sañ tuba xax min dunyaahu saadi lil jinaan li ma jël ci àddina mooy nécessité moyen pour yegg ci sama borom mu ne waaye nag booy jëfal sa àllaaxira na nga mel ni suba la suba suba dañ naan suba la bis penc sëñ Saliou Mbacke noonu la meloon Cheikh Saliou Mbacke wallahi noonu la meloon xol leen nim liggéeyee Touba rek nim ko yokkalee sëñ Touba rek effort yim ci def rek da nga naan kii xanaa jëfam yépp nag noonu la loo ci laal rek noonu la mel loo ci laal rek noonu la mel waaye ànd ak loolu buy jaamu yàlla danga naan kii moom xanaa amul soxla ci dara dul yàlla rek wax bu rabbaka atta yatikal yaqin rek mhm. mu wuutu sëñ Tuubaa ci saaxir wuutu ko ci baatin donn ko ci xasiide yi nag xasiide yi moom da ko cee donn lool lool lool lool wut ñoo xam ni nii ñoo koy jàng wuta leen bu ñuy jàng gis ngeen ko sax bi muy doog a toog jàng xasiide googu di rabbi bi maa yasabu a xat fajaxaa noonu mu nga xam ni xasida boo seetee waa juróom ci boppam moo ci jëkk a jaar ndax sëñ tubaab bi mu nekkee daarul mannaan te eh, tubaab bi yebal fa mbaaxaan mu ñëw di visite si kër ga kenn ku ne xam na ni neeñu bi nga xamante ni nii tubaab boobule eh, mbaaxaan jub si na ba am na benn naar bu ñu wax muhammad ibnu ali alyanqoobiyu moom la sëñ Tuubaa woo ni ko ndax mokkal nga xasiida gi ñu wax yaa rahman yaa rahim mu ni waaw mu ni ko jàng ko mu ngi tàmbalee ci rabbi bi ma yasraul asana qad fajaha bi jaay afdali man lay qad lajaha ila axirihi bi mu ko jàngee mu ni ko jàmm rek kay xew Cheikh Saliou Mbacke keroog bi mu jëkkee nekk alxalifatul muridiya keroog xasiida googu la jëkk a jàng ñaane ko yàlla defal ko barke defal ko mucc defal ko tiraanga defal ko njiit lu sedd te barke wallahi yàlla def na ko ca mboolem sëñ Tuubaa di ñaan ci biir xasidi googu rek yàlla def na ko ci biir xalifatu eh, xilaaf ak Cheikh Saliou Mbacké kon daal sëñ Muudu waxtaan yi wax dëgg moo ko toppee du jeex eh, bari na waaye ñu yamale foofu waxtaan yi damaa xamul nag ndax am na ñu bëgg a participer wala déet bu fekkee ne am na te ñu mën a ubbi téléphone yi baax na bu fekkee ne amul nag ah ñu tàggoo rek ba beneen yoon eh, di leen sant di leen gërëm di ndokkeeli tamit nag mboole ñi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi te yàlla dogal ñuy nit ñu baax a baax a baax ci at mii nga xam ni mooy atum tubaab bi jeex ñu koy waaj a ni nii dëgg-dëgg du ma deñ di leen ndokkeel jamono bu nekk waaye rawatina nag euh, ci buñ tollee ci ay fin d'année ñu delloo ci ndokkeel leen ci ñu leen ko ndokkale woon ci atum jullit ña moo seen jëf ak seenu mbaax ak seen top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngeen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste dafa na budul aljuma di alxamis nima xend ane bi lu la ci gëna neex mané ko lima ci gëna neex dal ku ñuy wax euh ahmadou bass moma ko waxon mané ha ah, mané waaw mané ko magaluk suñ mor jaaram bakke ga radiyallahu anhu damaa def dama defal maam moo xam si dina benn conférence parce que ma defee conférence ba mu noppi nag moom mu war a topp ci man waxtaane jaar-jaar yi suñu mor jaara bi mu ñëwee daf ma ne jàpp loxo ni ma yaa ngi fi bëgg sëñ Tuubaa rek keroog damaa big ba song sama poos waaye yàlla dogalu ma fekk ca lu bari ñaar téeméer laa ca fekk ma sànni ko ko jox ko ko hadiya ma ne ko loolooy li ma gën a neex moom ci at mi ci luñ ma wax yaa ngi fi gën a bëgg sëñ Touba ma kuñ ku ñu wax Ahmadou Baas moom ma ko waxoon. mu ne ma léegi nag lu la gën a naqari at mi ma ne ko jàpp gi ñu jàpp sëriñ daara ba xaadim gi loolu mooy li ma gën a naqari ci at mi moom loolu ma gën a naqari ci at mi kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ñu ngi nuyu ku ci mel ni euh, Mouhamed Diallo xam ngeen ko di wëlle réew daara ji di suñu xarit ndokkeel nañ ko di ko ñaanal yàlla jàmbaar di nuyu tamit ku ci mel ni sëriñ xullar kase xam ngeen ne xullar mm, wala fu koy wax waaye Seydina xuddar euh, lañ ko tudde tuddee naam Seydina xadir lañ ko tuddee xam ngeen dafa am beneen waaye bu ñu wax euh, xuddaar bokkut ak xadir mi nga xam ne mooy sëriñu Muusa ba alayhi salaatu wasalaam xadir mooy sëriñu Muusa ba moom lañ tuddee euh, xullar kase moomule ñu ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel moom tamit fan yi la woo di feeñal mbigam ak mm, bëggam ak émission bi ni koy toppee ak njariñ yi mu ko jural muy manifesté wu loolu tamit ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm ak ak ak taxawaayam di nuyu tamit mel ni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg suñ maam Thierno Ndiaye mu ngi fële ca Espagne waaye defe naa jamono mi ngi Sénégal ñëwoon na fi ci daara ji ndeysaan am na sax ay haut-parleur euh, maanaam ay kii baafal yu ndaw yi ñuy def ci jumaa juma yu doon ñeent andil ko jumaa ji ñuy tabax ci daara ji ñu ngi ko ci ndokkeel di ko ci gërëm mooy ki nga xam ne sax at at mu ne buy ñëw dana indaaleel daara ji kafe ñu ngi ko ci ndokkeel di ko ñaanal yàlla di nuyu suma xarit ba sëriñ ko safaal moom it eh, ñibbisi na Sénégal bari ci démb rek ñëw na fii ci daara ji ba indil ma fi benn jàllale bu rafet bu ngeen gisee ma sol jàllale bu rafet rek xam leen ni moom la ak eh, sëriñ xaadim jiite moom it mi ngi ñëw ñëwagut ci daara ji waaye woon ma téléphone ni mi ngi Sénégal nuyu nañ ko di ko ndokkeel xaritu daara ji la soxna Daba Jum moom tamit nuyu nañ ko foofu ci Amérique soxna maam bu sa ñas mi ngi foofu ci Italie nuyu nañ ko soxna Mburi Ka Guèye suñu jigéen ba dëkk fële ca Louga nuyu nañ ko soxna Awa eh, soxna Awa Ndiaye mi ngi foofu Amérique moo sëñ Siyaax Mbàkke ñoom ñëpp nuyu na leen di leen ndokkeel wax dëgg yàlla fàttewu ma leen yoon day toola mu léeg-léeg émission bi rek day boo xam ni daanaka rek damay xaal bu ma jikkal boo xam ne duma dootuma xam lu may wax ak ku ci mel ni sëñ Xaadi Diouf nekk fii ci suñu wet fi la këram nekk waaye mu nga fële ci Amérique waaye këram a ngi fii ci wetu daara ji Mor Mbeng moom tamit sëñ Mor Mbeng ak rakkam ji nekk fii Dakar moom it ndeysaan ren bi ñu bisee Sénégal ñoo na ba fii ci daara ji sëñ Ibrahima Ndiaye moom tamit xàttewuñu euh, ko ñu ngi koy nuyu Ibrahima Khalil Ibrahima Khalil moom kenn ci rajo bi ñu ngi koy nuyu euh, ku ci mel ni Serigne seex euh, Diouf nekk fële ca moom tamit ndeysaan di nit ku baax fii ci Mbàkke waaye ma nga fële ca Côte d'Ivoire ñawlu ay yére yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkeel diko ñaanal yàlla yére da rafet ba mu rusu ko sal yàlla xam nako wa waaw yu ris yoyal da fa rafet ba ngeen xam ne daa ko rus sol sax nit ñi di ma xool yu rafet ma sha allah jazakallahu ji jisaay yàlla na la yàlla fay te def ko ci sa tere jëf ci melni Serigne Cheikh john mu nga fële ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax Njaay di wax ni maanaam nit ki bu sañoon li muy wax ñeneen di ko déglu di ko jariñoo da nga ko yéene tuyaaba yéene gu ngeen ma yéene tuyaaba rek la ni boo demee li muy wax ni yéene ma ko gën a man gën ma koo xam waaye yéene ma tuyaaba moo tax ngeen di ko topp di ko déglu kon nag leen ci sant di leen ci gërëm waaye rawatina nag ngeen boole ca ah yëg ni am na daara ju fi nekk ju ñuy tuddi Ihya Ulumuddin ay doomi jullit di fi jàng alquranul karim di ko fi mokkale di ko fi jàng fi sabilillahi kenn du fay dara ngeen di ci dugal seen loxo ngir yàlla a ah, ànd koog way juri donga yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji ñoom tamit nga xam ne ñoom it ñu jàmbaare lañ ci seen cëmtulaay kàttan ñenn ñoom a ah, ñi nga xam ni tamit eh, seen loxo jotul seen gannaaw loola taxoon ñi samp daara ji mooy dañoo gisoon ni doomi jullit ñi war nañoo mokkal alquran te dem nañ ba ma gis ni daal daa ni ku sa bàyyi amul alal sa doom dootu mokkal alquran loola taxoon mani mandana man dana samp daare alquran liggéeyal ci seigne Touba jangale fi alquran fi sabilillahi taala lolu motax daara ji deug deug ngeen japp ci ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di leen ci ndokkel di leen ci ñaanal euh, di gërëm bu baax ak ñaanal cheikh euh, man cerno Mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit euh, xamna ni rabbi barki dimb rek euh, yónnee na ma ndaw ni da daa am jumaa ju muy teg xeer ba àllarba bi di ñëw te Cheikh Mountakha war koo teg euh, yàlla na àgg ak jàmm te sotteeg jàmm tam fekke ko incha allah di ubbil ko boppam dëgg-dëgg ñu ngi koy ndokkeel teraanga jooju mu ma lebaloon muy solu dàllam ñëw ba fii ci daara Ihya Ulumuddin ngir seet si ma ngir sëñ Tuubaa rek dëgg-dëgg aw ma payam du ma ko fàtte de du ko fàtte de ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ñu koy ñaan yàlla bu baax incha allah su ko defee kon sëñ muudu ñu ngi wax suñu borom ni ko allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina asaba naar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida wa sallallahu ala muhammad Música